jub ku ci nekk lii sa wërsëg te mu sel te mu lew la kenn terewul nga lekk ko ni DG e doxalee ak moom CDC doxal ko da ngeen jàpp ne euh, les kon moom du bokk. xam nga xam nga <laughs> oui. ba ñu yóbbu caution wam dañ leen a delloo chèque ba euh, parrainage itam mënugu ko jot te fii quelques jours la ñuy euh, tëj. mbiram parrainage politique la gis nga politique moom. rapport de force la pour le moment ci période bi ñu nekk. dañu dafa mel ni rapport de force bi c'est à la faveur de ñiy dal ci kawam loolu rek la séquence beneen mën na ñëw rapport de force bi changé donc à la pour man ah euh, yaa ngi gis Mauritanie président Abdoul Aziz cinq ans lañ ko dóor kan moo ko foogoon <laughs> donc à la limite euh, émotion euh, amul solo li am solo mooy ñu xoolee les xool comment les faits s'enchaînent ak fu fan lay teer jee fii seen ah le président Abdoulaye Wade a régné 12 ans on a emprisonné son fils on l'a presque exilé dans son propre pays donc nit kay man je pense que ñiy jege président Macky Sall dañ ko waroon wax dëgg yàlla tax ne ko du nii du nii parce que soo toroxalee ay doomu aadama xamuloo sa ëllëg lan la mm-hmm. donc nit ku baax da ngay wax nit ki nit ku baax mais di la jay yaa fi mën ba ba di la euh, <laughs> introniser lamto je veux dire Sénégal quand même on est où on est où léegi léegi léegi ci wàllu woowu noonu li nga wax ne ëllëgu Sénégal ndax ci taxawaay yi nga xamante ne tey moom la ñu jàpp ne justice mu ngi koy amee ci kaw Ousmane ko ëllëg keneen su ñëwee euh, def noonu itam ak régime bi nga xamante ne moo fi nekk su nekkul ñoom ñoo yoraat nguur gi ndax lool du gën a indi njàkkare ci ñi nga xamante ne ñoo bëgg démocratie dox ci réew mi moom ñun loolu la wax dañu il faut siffler la fin de la récréation mais maam Abdou yooxu na fi bàyyi leen doole yi leen yàlla dénk ngeen di ko dóor ci kaw nit ñi on n'écoute pas c'est pas parce que nekk nga mandat cinq ans rek nga foog ne non non la preuve wax naa la Abdoul Aziz mais ana Ben Ali ah. tout s'est passé devant nous ana fii ana ana ana ana ana mais yooyu yëpp romb fi ñun on n'apprend rien. on n'apprend rien ñi nga xam ni ñi ñi am de retraite tranquille jusqu'à leur mort pour pour prendre nos présidents ab président Senghor retraité ba dee pourquoi parce que peut-être am na à un certain niveau yu mu deful même si son principal opposant moom la njëkk a tëj le 17 décembre 62. kon su ma la déggee yow da nga. xam jaaxle ci ëllëgu président Macky Sall da ko tiital. non man du ma gisaane mais dama ne ku def nangam gis. règle générale la. ku def nangam gis nangam mais man su ma ko su ma amoon noppam danaa ko ne monsieur le président du nii. ni muy def Sonko. du Sonko rek Khalifa Sall. Khalifa Sall et pas que et pas que parce que tey su Khalifa Sall ne day dem Matam ñu ni cortège bi du dugg pour lan. kan mooy commandé gendarmerie gendarmerie quand même c'est ce n'est pas la justice <laughs> gendarmerie c'est président premier ministre am tourné fi ba toog. Ah, oh, loolu kay sénégalais yi ngi seetaan xam nga ñoom dañuy fàtte ne quand on est dans nos maisons on n'a pas de pouvoir mais on a on n'est pas bête donc dañuy mën a analyser xool le pourquoi du comment et jusqu'où Okay. mais ni ngeen waxee nii est-ce que gars dañuy ñëwaat ci début émission bi da ngeen waxee ne da a jóg ngir Sénégal mais yéen seen waxee ni c'était comme si que yéen Amadou Ba moom xalaatee leen ko jàppale. kan Amadou Ba xalaatee leen ko jàppale. ah waxuma la loolu. waxuma ah, la loolu non non non waxuma non non non danañ ko danañ ko interviewé ji. danañ ko la suñu suñu nangoo recevoir mais pour pourquoi mais attendez entendons-nous bien mm-hmm. ñun du ñu def discrimination au départ moo tax ñu ne sinon ñu dem engage wu fenn rek dañu ne su fekkente ne liste officielle bi génn na ñun am nañu suñuy critères mm-hmm. yan la entre autres la bonne gouvernance loolu mooy premier ku tout ñu mosul tudd sax ci luubal. ah loolu noonu dana jafe. ah mais attendez. kon kon xam naa ne kon xam naa ne leen éliminé. Ah, non mais. Euh, ah, non mais c'est sûr moitié candidat parce que tey y a des dossiers qui sont là non non. zéro zéro zéro daf lay wone. na ma mais am na <laughs> mais y des dossiers qui sont là y des non y des. waay ñu leeral ko neex na ma. xam ñoo ngi wax naan ba léegi on comprend pas pourquoi ils ne sont pas traduits en justice alors des candidats des donc nous on a une démarche factuelle d'accord le jour où la liste va sortir on va prendre notre bâton de pèlerin si on vient devant un monsieur je suis avec le doyen Modignan qui était à l'OFNAC il y a pas que lui Sidi Ndour inspecteur général d'État c'est pas des farfelus je vous dis nous on vient mais de bonne foi on sonnera à la porte de tout le monde parce que aussi soo defee discrimination au départ loolu par par loola mais suñ toogee ak yow <laughs> mënoo ñu sexal lem ba duñ le ne ah nangam de mhm. waxoon nañ ko nangam waxoon nañ parce que attendez il faut aussi dire une chose les les les les conseillers en communication de Amadou Ba sont sortis en disant en le lavant en grande eau donc il a sûrement des arguments on verra on, verra y a pas que lui même le journaliste là célèbre qui a des immeubles et tout il a dit qu'il est devenu riche en en je ne quelle année mais tout ça c'est dans ce pays les narratifs nit ñi narratif bu la neex nga ràbb mais ñun du ñuy dof ku ñu nangu recevoir danañu fëgg sa bunt soo ñu nangu recevoir ñu dugg soo ñu nangu recevoir ñu ne nanguwuloo ñu recevoir ñu effacer la ci suñu liste seeti keneen mais li li tax ñuy def démarche boobu moo di en tout cas su ñu demee ba tànn kenn nit ñi danañu xam ne ñun mun nañu politique. léegi bu weesoo mal dañ ko seexul woon wante mën nañ ko. d'accord <laughs> bu weesoo mal gouvernance ci lan leneen ngeen di tànn candidat. sa projet pour le Sénégal sa projet pour le Sénégal. munoo munoo tey un pays comme le Sénégal mhm. à vocation agricole nga jël su politique yëpp yëpp yëpp yëpp sa alal yëpp yëpp yëpp yëpp def ko par exemple dans les infrastructures urbaines de mobilité au nom quoi. et pourtant ils sont fiers mais tant BRT que euh, TER e à quoi à ramener les gens de la banlieue en ville. mais est-ce que éliminer bu leen Amadou Ba ba pare. ah non mais <laughs> <laughs> il peut il peut me donner des arguments non non il peut ma il peut il peut me donner moo tax man xam nga sànq nee naa pour man su ma doon moom du ma ànd ak président di tourner. parce que dana au moins def am une image différente. mais il est comptable du, bilan du président aussi. Ah, il ne peut pas se régner. yaa constate. nekk ministre euh, ministre euh, finance. nekk fi des affaires étrangères. mais mais dans premier ministre. dans ce cas là il y aura presque aucun candidat parce que dans ce pays tout le monde a été comptable. à plus ou moins ou de Wade ou de Macky. mais am na des candidats yoo xam ne ou de ou du PS. mais am na y' a des euh, y' parce que la classe politique change wul. ah je veux pas de citer de nom mais a non mais vous avez cité des noms à contrario il faut en citer en <laughs> positif. <laughs> Ah, par exemple un Thione c'est un candidat indépendant on peut euh, le prendre Thione c'est un candidat indépendant te mënuñu ko wax te ko wax c'est un candidat exemple exemple en plus Thione au moins il fait des preuves dans l'agriculture ah, mais je veux dire ñu on a aucun kon moom remplir na benn ci seen ay critères entre autres et il y a d'autres candidats dont le discours pour nous mhm. est un discours positif pour le Sénégal mais ça ne suffit pas, pour faire un président mais quand même mais même suñu tànnee président candidat boo xam ni cuuc la ko gars yi teg mhm. danañ ci sonn moom laa la bëgg wax dama la bëgg wax ne ñun ku ñu wax lu ñu dégg mhm. soo su la gars yi jàppee cuuc sax mhm. ñun danañu la fexe lu ñu mën jàppale la yëkkati la mais léegi ba sénégalais yi xam ne kii ñu teg cuuc mot na séq léegi léegi ci ci ci wàllu lay ba léegi ci critères yi ngeen teg ci wàllum yoon ak yoonal parce que gis nañ ne vraiment euh, Sénégal sonn nañ ci lool lool lool moo xam ñi nga xam ne ay politique lañ wala ñi nga xamante ne yoon ak yoonal justice maanaam maanaam euh, bëgg nañu aussi yéen ci réforme yi nga xam ne wala sax ci euh, li ngeen xam ne jàpp ngeen ne tey euh, war ngeen cee mën a sukkandiku nga jàppale candidat ci wàllu yoon ak yoonal yéen lan ngeen jàpp ne moo fi war a taxaw ba nit mën koo wax ci seen nopp yéen ngeen war ko mën a jàppale xam nga soo nee bonne gouvernance rek c'est un générique mais secteur yëpp lay laal bonne gouvernance laal na justice laal na santé publique hôpitaux yi da ngay ñëw urgence da ngay découragé et pourtant. déjà syndicat et, et pourtant et pourtant du manque du manque de cadre compétent. syndicat mais moyens yi ñu ciy war a def ak nañ ko fa war a defee. Mhm. la ñu deful euh, ak manque de leadership inspiré yi xam nga dafa am ay problèmes yoo xam ni euh, soo ñëwee fekk kër salte da ngay ne mhm. surga yee ko salte fekk borom kër gee sàggan réew mi loolu moo ñu dal li ñu dal moo di ñii ne jiital leen ma jiital leen ma suñu duggee rek. Mhm. xam nga nag aussi nañu waxante dëgg. président de la république pouvoir yi il faut ñu wàññi ko dafa ëpp. dafa ëpp trop dañuy nawlonte. kon loolu bokk na ci li bokk na ci kay. te mais loolu assises yi sax waxoon nañ ko. parce que commission nationale de réforme des institutions wax nañ ko il faut ñu wàññi do do doo mais mais munoo nekk président boo xam ni déjà wooteel nañ la euh, huit milliards par an soo fi defee cinq ans muy quarante milliards. caisse noire ki sa caisse noire ak ak mu caat yi ñëw. mu càkkee ñëw parce que fii on se sait on se mooy am na ñoo xam ne ñii soo leen joxee poste bu am njëriñ saa yu ñu teqee sedd la. Hmm. ah kay saa yu ñu fayee ko. saa yu ah mais yow tam loolu moom danañ ci agsi ñun ah. du ñuy léeb de. xam dañ ci dugg ba pare xam naka la. nekkoon na ministre la loolu mais maa ngi ci biir ba tey. Hmm. lépp xew ci biir ma xam nañ ko donc dañuy teq di la sedd Mhm. loolu yëpp ngay dajale di dajale di dajale di dajale di dajale. Mhm. mais foo jëm ak loolu yenn yi fër lay jur. d'accord si Fatali si. on parlait d'enrichissement illicite sànq. concernant euh, président. <laughs> l'ancien président Ould mais mais monsieur le ministre yow dañu gis Ousmane Sonko mës la seet si. Hmm. ngeen waxtaan ñu bëri tam njort ne am ngeen ay relation hmm. est-ce que loolu du impact ci. jóg mais non parce que xam naa xam naa xam naa ñi ñi nekk candidat fii au moins au moins douze à treize xam naa leen personnellement wala quinze sax. ñëw nañu sama kër mbaa ma dem seen kër on a des relations mais attends on n'est pas dans une île <laughs> réew mi ñu ñëpp a xamante fii. ñun ñëpp a xamante fii. xam xam naa président Macky Sall avant muy nekk président bi mu nekkee président xam naa xam Amadou Ba Amadou Ba c'est mon jeune frère. <laughs> donc je veux dire euh, ñun fii dëkk bi xamante nañu mais entre loolu. Mhm. ak jàppale la ci lu dul yoon. Mhm. y a un mhm. te loolu âge yi ma toll te li fi des bëreetul du ma tayle sama dund ak sama sérénité bi ma am tey. pour neex kenn. donc damay damay mun naa ñëw waxtaan ak yow. soo tegee ci sama loxo lu wér. parce que ma dof. ànd na ñi ma àndal parce que su ma naree nii nag kenn ci gars yi dana ma ne ah du nii. loolu moo tax suñu ànd neex dafa di ànd ay nawle ba nga xam ni ëllëg duma ñeme. ñu la mën a wàññi. waaw donc léegi li wér te wóor soxna Fatou moo di Sénégal du rek dirigeant yi mais débat citoyen bi nga xam ni ñun ñii ku ci nekk ci ñun est-ce que jub nga est-ce que yaa ngi jubal parce que le Sénégalais commun day critiquer rek. fekk moom mu ngi ci toog ci musiba keroog fii rek pour dem def. benn démarche administrative bugguma désigner service bi mais pour nga jënd euh, euh, timbre fiscal dafa am ñoo xam ne ñi dañuy jënd yu bëri denc nga dem ci guichet ba ñu ne la jeex na ngay génn ñu ne la ñu teg ci dara waa loolu réew muy doxee noonu na kañ la ñuy an am yooyu dafa warul dafa dañ ko war a régler yi daan jar vingt mille vingt trois mille lay jar léegi circulation bi mhm. transport public au moins dix à quinze offres différente mais réew dañ koy yilif dañ koy organiser du kum neex rek nga taal sa oto rek di di di di di encaisser di di di yangoo di itch di n'importe quoi non il faut que ñu organiser transport public bi société bu mel ni Dakar dem dikk dañ ko war a restructurer mm. muy liggéey léegi y a le BRT a le machin bon en tout cas on va articuler tout ça mais dañ ko war a organiser mais circulation bi genn wàll bi ci nekk ñi ciy daw ay siiru maal la ay ay ay ay ay <laughs> ku nekk yaa ngi ma je connais même des cadres de de de de de de l'administration suñuy wàcc dañuy dañuy dañuy transport. donc il faut ñu organiser dëkk bi. léegi léegi ci wàllum ndaw ñi. mbéy mi ah. ci wàllum ndaw ñi ak mbéy mi. mais ndaw liggéey liggéey bi mbéy mi articuler ko ak ndaw yi. mooy ànd Sénégal dañu war a nekk un grand pays agricole exportateur fii Sénégal. prend li démb maa ngi waxtaan ak benn banque yi mu ni ma mais Kenya li muy exporté ci fleur ñun dañ ko daan def yéen peut-être fekkewu leen ko vous êtes trop trop jeune mais Jardi Park fi ñu jël def cité ministérielle ji li mbay fii y avait toutes les fleurs un vieux tubaab moo ko fa daan def le climat du Sénégal se prête à l'horticulture mais il faut qu'on y mette des moyens j'ai rencontré un jeune maa ngi koy cité tout le temps en exemple dans mon village d'origine au Fouta là-bas il est sur 40 hectares il exporte chaque semaine deux conteneurs de kanje vers les marchés européens kanje mene mi kanje hmm. mais attendez te Fuuta ngi noonu ne yambalang mais même loolu dañu war a waxtaan ne ñi ñi sama suufu maam sama suufu maam te béyoo ko il faut faire des win-win partenaire partenariat gagnant gagnant oh, voilà par gagnant gagnant maa moom suuf si mais amu ma moyen yow am nga moyen kaay ñu déggoo et pourtant dañ ko doon def on appelle ça ren pétienne mooy béyal ñu séddoo mbay séddoo da da loolu am na ci suñu tradition mm. mais nañu jël tradition boobu porter ko à la modernité expliquer nit ñi ne dund bi dafa gàtt toog fii rek sama suufu maam ba ñu dugal la ci amul benn njëriñ nañu waxtaan changer mindset te développement réew ku nekk dangay am foo téye nos bijoutiers j'ai toujours dit man je ne comprends pas que sunuy bijoutier nga xam ni ñoom normalement parce que bijoutier bu ay yaay quartier mais mais yóbbuwuñu xel bi foofu. ba ñu bëri ñu ngi bàyyi ce métier là un des plus beaux métiers du monde yonent yàlla Daouda il en était nga war a tey Sénégal mu ngi produit tuuti or. ñu war leen dimbalee ba nga xam ni lépp même ñii dem du bàyyi jënd bijou mun nañ ñëw Sénégal jënd si bijou cordonnerie. suñuy artisan cordonnier waa ngaay waa ngaay rek mais du ñoom rek y a beaucoup de poches mais ñi métiers yooyu dañ koy bàyyi le tissage pagne tissé machin machin yaa ngi maa ngi gis li nga sol gis nga <laughs> les gens non mais je veux dire les gens ont une il y a une demande mm-hmm. qui n'est pas encore donc dans beaucoup de secteurs nañu xoolaat suñu bopp tànn ni ñu bëgg a développé wu pas ni tubaab yi bëggee ñu développé wu mm-hmm. ñun mën nañu inventer suñu yoonu développement mm-hmm. bu bokkul ak ñoom seen bos. ñu yokk lekkum ñu yokku lekkum dugub bi. non foofu ngeen nar a tubbee ak candidat yi. entre autres mais ñun dañu bind document ah. dañu yor document non cest à li may wax nii damay wax sama xalaat. mën na am sax peut-être. sa mais am une idée de seen manifeste bi ban orientation ngeen jël que vous allez parler développement émergence avec des candidats bi sommaire bi rek am na plus de 40 points. ñun ñëwuñu pour foofu. bu to soobee yàlla ay borom xam-xam ak bindkat moom li tax li tax génneeguñ ko c'est am na ay candidats yu amul yu amul programme. <laughs> da ngay da ngay génne da ngay génne conseil ñu jël ko def ko ci seen programme soo ñëwee di wax ñoom mu ne waxoon naa léegi léegi ci ci ci wàllu woowulee aussi tamit ndax jàppoo leen ne la nga xamante ne tey la moom la ndaw ñi ñëpp yu bari nekkee wala xalaat a def sax mooy wàllum immigration itam bokk na ci point fac yu mag yi nga xamante ne tey war na ci programme bu bépp candidat mais absolument mais li tax xale yi di daw c'est que amuñ fu ñu jàpp donc da ngay régler fi ñu jàpp ba pare nga door leen nee bu leen dem. Mm. mais ma ne la bul dem teguma ci sa loxo dara c'est pas logique. donc et pourtant li ma la wax agriculture industrialisation bu bu bu bu bu bu tegu ci yoon fii man waxtaan naa ak ingénieur yéen am na yenn entreprise yoo xam ni fii ci seen salle bi mën nga fi def benn entreprise buy defar ay ay ay ay jus buy defar ay fekk c'est pas des grosses ay machine yu dix mille dollars. nga non mais ay machine yu léegi adduna bi dafa changé. usines yu mag yooyu c'est fini ça. la preuve yéen a ngi yor seen télévision dans un petit coin et ça marche et vous êtes vu partout dans le monde. Mm-hmm. donc beaucoup de choses changé na paradigme yi la ñu war a xoolaat dimbale xale yi dans un quartier comme sax par exemple mën mm-hmm. nañu créer des petites entreprises de proximité mm-hmm. nga xam ni ñi mburu bi yëpp. xam nañu suñuy doom ñoo koy defar ñoo ñu koy jaay. fruits et légumes suñu ay doom ñoo organisé wu en GIE ñu ñu leen di dimbali ñu ñu ñu koy jaay. fekk li ñu koy produire ci réew mi lañ koy produire sunu sunu sunu ñaay bi nga xam ni ñu ngi one est en train de cannibaliser ça yàq ko complètement def ay ay kër ay kër ay kër fekk li ñu doon lekk ci légumes yëpp. côté yooyu côté yooyu la doon jógee. enfin y a des choses à regarder. la folie du béton ay këru ay kër ay immeuble tabax le jour où bulle bi parce que bulle la suñu organiser woon dëkk bi dëgg nit mën na dëkk Thiès di liggéeyee Dakar moi ça m'est arrivé dans ma jeunesse dëkk Orléans di liggéeyee Paris donc c'est rien du tout et pourtant moo gën a sori Thiès mhm. mais su amee train yu baax mhm. mais le train bi nga xam ni bii dañ ko waroon réparer ba waaw non le petit non petit train bleu c'est train de banlieue mais train bi dañ ko doon jël ndar dem ndar mais projet bi ñoo ngi ci. waaw mais projet waaw projet moom <laughs> ñoo ngi ci waa zéro bi yàlla